mbokki Sénégal mbokki bitim réew yéen ñi amoon jafe-jafe ak jaaxle ci seen wér-gu-yaram ak seeni aajo seen jaaxle jeex na tey ngir jëmm ju baax ji yàlla baaxe ñu ci réewum Sénégal muy Thierno Malick Sow di jëmm ju baax te sell lool te bari ay karaama ak i kéemaan yow mi am jafe-jafe ci sa néegu sëy moo xam ngay góor wala jigéen da nga néew kàttan ci sa néegu sëy wala da nga bëgg jàmm ci sa néegu sëy juboo ak sa boroom kër nga bëgg wala jubóog sa soxna moom nga bëgg ak lu mu ci mën a doon Thierno Malick Sow moo ci gaaw gaaw ci saafara tawatu doomu aadama moo tax ma koy woowee Thierno Malick Sow jooni jooni yow mi am jafe-jafey tukki di lijjanti kayit yi mu jafe loolu ci yow dama ni jokkool ak Thierno moo ci gaaw fan yu néew nga génn réew mi ak moo bëgg dem da nga nekk bitim réew am jafe kayit jokkool ak Thierno à distance mu defal la li mu lay defal ci juróom-ñaari fan nga jot say kayit da nga nekk ci mbir di ca yëngu lépp dëgër loo lijjanti mu jafe loo jaay mu lamb dama ni bayre njaay moo ma ci doy ubbiku moo ma ci doy soxna nga bëgg wala boroom kër mu jafe la lool nga topp ci guddi ak bëccëg mbir yi dëgër jokkool ak Thierno moo ci gën a gaaw ci doy aadama ah, ne ana ñiy def examen bac wala BFEM ak jongante boo mën a ne di ca xëccoo te bëgg ca ndam Cerno Saw moo ci gaaw yow mi dugg ci mbir te bëgg caa am lu leer ba boo ca duggee am ca ndam moo xam muy listixaar wala seet jokkool ak Cerno Malick Saw moo ci ay moo ko xam te moo ko man ngir jokkoo ak moom woo ko ci numéro téléphone bii ma lay jox di 78 186 02 48 78 186 02 48 dama ne ak Cerno Malick Saw rek fii ci réewum Sénégal sa jaaxle jeex na tey waay bu ma yaakaar ñëwal waay ah. ma ni nga def ma waay ñëwal waay. ma daan waay demal ñibbi waay ah. demal ñibbi demal ñibbi yow tam nag bul ma indil fii ay yeneen as yoo xam ne fii nii damay ñàkk li ma commencé nii te damaa commencé bugg àggale yal na ma yàlla may ma àggale ci jàmm ak salaam. yal na ma yàlla may ma àggale ci jàmm ak salaam. Eh, ma ñibbi damaa ñibbiwul. yaa ngi may dégg wa koo dégg <laughs> wa rek yaay ñibbi nag. fii laay taxaw wax la li ma la bëgg wax yëpp ba pare. soog di dem fu ma war a dem. Eh, et puis sax Lamine mënuloo lekk moromam te loo de. Lamine mënuloo lekk moroom loo wax am naa nu ma wax. loo wax rek am naa lu ma wax bu la neexee ndax yaa moom sa Lamine. ma ni nga déglu ma ma wax ba pare. waxal yow et sax danga maa yow yoro lu ma la defarul ci àdduna. yoro lépp loo mu a bëgg suba ba ngoon maa ci. lépp loo mu a taxaw man ma jàppale la ci ba mu jeex. tey mën nga mën a war <laughs> nee nga danga koy takk ji yoro demal. kan moo lay war demal takk ji gis nga yow sëy bi du am te bu amee du duré lu leer laa la wax te sama bakkan laaj teg yaa may dégg est yoro sama yoro la. yaa ma jur kay waaw waaw yow yaa mu uuf ñu wat sama kii saabu nde dóor ma saabu ci bopp. waaw yaa mu yóbbu ñu jongloo ma kay yow la de. fekkee naa ko kay ndax maa la <laughs> gis nga yow boo nekkoon gor nga sax waruloo ñëw fii yow nekkuloo gor. yow yaay taxaw fii di mu réclamer sama amour. waaw yow yaa may réclamer amour. waaw mbete amour kaj mbete amour kaj nga xam ni da gelu kaj bi day génn rek deux cent mille kaj topp ko. man mbete amul kaj laay lay la laaw yow deretu góor dawloo sa yaram yow boisson mooy deret boisson mooy daw sa yaram te bu saful suukar nag boisson punduk bi parce que yow deretu góor dawul sa yaram man de ku ma waxoon duma ko gëm Aïcha yow nga ne yaay dem séeréer yoro <laughs> non damay gént ñoppati ma ñoppati ma chéri yow ma ne géntoo bàyyi li nga nekkee nag génn si li nga kenn suñu nga ne xam nga ne yorom yi dama koy sëy engagé te waxuma loolu sax wàllu xew bi lépp laa jël yëkkati ko teg ko sa loxo man yow laa yéen ma lambaloo parce que kon kuy xew rek ni kaa ñu woo bii ba wàllum oto seen yooyu ñu jox ko ko yéen ma lambaloo ngir yàlla bàyyi leen ma mais bon yow moom sama xarit nga sama doom ndey la boo xewee ma ci war a taxaw malgré mariage bi neexuma mais dinaa ci taxaw mais yow loolu nga décidé. yow su fekkoon góor mi li nga ma def yëpp ma teg sama yaakaar si yow dëkk bi yëpp ku ma coppal ma bañ ku ma jéem ma takk ma bañ ni yow la toppala foo sëkkatee ma wax yaar mi nekk di kallaawu yow ah ma def resaisissé bàyyil ma def rôle ma gradé ñëw parce que mbuggeel moo ma woo ma ñëw ak sama mbuggeel loo defaat. lan nga defaat. yow xam nga ne man nga bëgg. lan nga defaat laa wax nga waraat ma encore deuxième war dem boroom fi du ma toogaat fii nag nga may waraat ay troisième war gis nga kii def ma bugg te yàlla tax. yore mi nga xam ne yorul xëyul gontuwul dóorewul fayewul attewul xeex yore bu añee du reer bu reeree du ndékki dama yërëm de. jarul yërëm. Mm-hmm. yéen ñàkk yoru yor ñàkk yoro yéen jaaxal na leen de. kaay ma wax la nag man damaa uteel samay morom yu bari gis na xale jigéen ñu ñoo ñor ñor man ñoru ma loolu fukk ma man xale jigéen lu ñuy wax góor gu am xaalis góor gu am oto ak góor gu boobu man loolu ñor ma xam li ma ñor hmm. mooy waa ji bëgg na ma te am na diina te respecté na ma am na fu ma teg xam nga laa gis ne nii nii bëccëg ndaran kam ngay daw ak say say daawal di daaguwaat ba seen kër gi waaw koy gis nii bañ a jax dama ne xew bi seeral ma ko jànk te bàyyi du yooyu yooyu suuf wala nga bëgg naa la gérer xew mi incha allah yaay sama doomu ndey bëggee dama koy bëggalee mm-hmm. ku ma teree takk kii ma rey sa ndey ku ma teree dund ak moom ma rey sa maam ku ma teree fóon ko ma rendi seen waa kër yëpp dukaan koonam maa la wax loolu. kon de suñu waa kër di nga leen rey. yow xam nga yow yaa fa daan daagu di ma seet waaye kaa ma wax la nag dangaa yaakaar ne suñu mbëggeel noonu lay jeexee. jeex na day yomb daal la maa ngi dem bu gee bi dinaa fi ñëw man bu gee bi jeex na ma rek. moo yow man demal yëngalaw taat man yi yëngalu ma taat yi ma am. doy na ma yëngalal na mo demal sol si ay saako ko may wax ngay dox di bëgër bëgëri waale man saa kot yëngalu ma de toogal foofu dokot rek lay bari waaye kottu rëy kottu bu rëy dokot rek man dinaa am taay fiile yal na ma si yàlla musal yal na ma yàlla musal si yow ba léegi gëw ma ni sëy si nga. ba léegi gëmoo ko. gëm ko nag ah loolu am de. fii. maa ngi lu ma bëgg a def kenn mu si daal. dëgg yàlla xam nga woo takkee ki nga bugg du ñëpp ñoo ko am de. ah. nga mbuggeel comme ni ma la mbuggeelee nii nga mbuggeel ma nii ñu sëy. Hmm. du ñëpp ñoo ko am de ñii dañuy def mariage forcé. ñii dañuy def mariage pédophile ñii dañuy def mariage arrasé. ñii mariage kaalis. ñii mariage leneen ñun mariage mbuggeel lañu def te yàlla tax. di la kool rek. man du doyal di eh kay ma nag gis nga dem bi nga tëddee damaa jóg toog <laughs> toog jàkkaarloo. moom mel ni dañ ma taal cinéma moom kool la di apprécier sa dëpp bi. ndax koo nam yàlla moo mun bind bind naa la de ni ma bindee moo tax nga gis ma nopp ma dëgg neexul leer na de dafa leer fas yéene jàkkaarloo yow attaaya la attaaya bu am jom attaaya bu amul fenn bii wax ni nit nag <laughs> yow baa doo mujjee dof ya <laughs> noonu nag man nag fas yéene ñëw fii nag sëy ba dee hmm. parce que waa koñ bi ñoom ñii waa koñ tax ñu neex gëmuñu nit ñi di wër ah. naan nag maa liggéey mais foo ma liggéeyee yàlla na ma si yàlla Moussa yow maa yow ñu gisante bëggante te yàlla tax lu tax ñuy soxor <laughs> liggéey xanaa xamuloo boo liggéeyee la bis bu liggéey bi tojee te lu ah ilaa ilaa kii Rouge ñëw na fi. kat Rouge sama cuksu bu yàgg bi. dégg mu Rouge xam nga Rouge. waaw léegi nu mu fi ñëw waaw. yàlla dem na kii deux semaines bi mu ñëwee. ah deux bu ba léegi tey nga ma ko doogee wax. déedéet ñëw malheur la ñëw. ñëwul ah, ñëw bonheur. waaw d'accord lu mu wax. ñëw. eh man sax bu ma duggee si bàmmeel balaa malaaka di ma laaj yow laa njëkk a jóg nettali nga may wax bi ay la bu ma téye ko mu ne muy. yow man ak yow démba man ko wuy démba woon waaw suñu buggeel ñun ñaar ki nga bugg takk doo ko takk doo ko takk ma ko nga lan mu ne ma doo ko takk ma ne ko fenn nga kii Macky Sall sax bu waxee duma ko takk ma keeram moom waa dit bu ñu waxee duma ko takk ma jaay leen sama réew mu ne ma boo ko takkee it doo ko savourer ma ne ko lu tax du ma ko savourer mu ne ma du ngeen am doom ma ne ko fen nga hmm. man dama forog toll laa dem Rose sama gàdda ko dese. daal la ñëw fi ma dàq ko comme kañ. voilà muy dem nag bëgër bëgër taat yi pour ma xool taat yi xam ni. mu eh, koy bëgër bëgër. yow tamit nga bëgër bëgër bi de. yàlla am na di di dama seetlu muy bëgër bëgër yi di dem di ko def ñaari paan yi moom taat yi dem bari day mel ñaari paan yi yow dëpp loo noonu mu def ko nii kulu kulu kulu kulu eh, di nga kam. Ah, yow mi xool nga doom jàmbur. yàlla am na ni yàlla am na ni xooluma yàlla am na ni xooluma dafa romb ma kel ma si dama kel ma si gis nga bi ma bàyyee kel dama kel ma si mu yëngal ko ma ne ko lii dokotkaay la saf lu moom loolu laa ko wax ma ne ko tay fii lee yow yow bawam man dama laa xam est nga ko wax yàlla xam na ko billaay wallaay li ma la wax su ma si waree baat yàlla na yàlla naa dee lii laa ko wax ma ne ko war a kooki yëngalu ma parce que man ki ma yor bu courant coupé boo defee nii li nga gis au minute deux minutes les trois minutes danga koy gis si gauche wala si droite moom nag bu cour à couper Rose wala maa ngi droite <laughs> yàlla ma si yàlla ma sax kel bu ñuul kel bu ñuul te tëj war set gel bu ñuul surtout Rose yi wala <laughs> tëddee ak ñoom yow daal ni nga yàq Rose ah, yow eh démb na moom la woon nag dafa war dafa war da nga ko bëgg xajal. non xajal. Ah. Hmm. bi may borom. noo ko téye. sama loxo. ak sa lan. sama lépp. ak sa lan. eh di nijaay nag daal di ci